mbokk yi ñu ngi leen di bu baax di leen wax ngeen dal jàmm sur sport 221. Brésil doon dalal Argentine eh, ay jàpp daamoon fa loolee mooy tax Messi jël ay eh, coéquipier bi ne leen kat nañu dugg versaire ndax kat sécurité amu fi waaye ab diir kat lañu teg kat boobee mujj am tu jàpp leen kon les albicelestes les champions du monde en titre ñooy mujjee daan waa Brésil grâce à Otamendi voilà 1 but à 0 et que nag ci jowante boobee nag mën nañ ci nemmeeku ki ngeen mooy Lionel Messi voilà jot na faa jàppanteel ki ngeen mooy Rodrigo. conversation boobu nag fësal na ko ba soxnikoo ci ESPN na jour merengue kat da nekk yéen kat da ngay comporté wu comme ay lâche excusez-moi du terme noonee kat da nga ko waxee ba tax nag lu ne Messi tontu ko nekk kat ñun ñooy champion du monde lu tax kat nga ñuy wax bat bu ñagas boobu mu nekk tëjal sa gémmiñ ndax yow benn ndaw nga voilà nag ci noonee ko ci man ki nga ne moom mooy. voilà Depaul ñëwati ci wetu Lionel Messi moom mooy gàddu koram lu xew kat ma ngi ci ginnaaw waaye kat jàppante bi mu tàngoor na jéer ci diggante euh, Brésil ak waa Argentine Brésil nag ñu ngi ci jafe-jafe ndax trois matchs consécutifs mi ngi ne ñuy am ay défaite rawatina de mooy li soxal qualification mondiale 2026 kon ñoom kat vraiment seen position muccul ayib dara Argentine nag moom mooy équipe bu njëkk ci li nga xam ne moom mooy qualification de la coupe du monde ñu tànn Brésil Brésil à domicile kon Brésil nag voilà gën nañ am défaite boobee ci maanaam bu delloo ci ginnaaw il y a soixante-dix ans et que ci soixante-dix ans yooyee pour rappel Argentine de Lionel Messi. ñoo leen ci daan ñaari yoon ki nga xam moom mooy Scaloni bi nga xam moom moo yóbbu Argentine ca Qatar ñu gàddu raay bi waaye nag coow dafa dox ci digganteem ak président fédération Argentine ci noonu la ñu ngi fësal ci xibaar yi kat moom jotul li nga xam moom mooy prime bi moom lañ ko war a sargalee ginnaaw bañ gàddoo raay bi foofee ca Qatar kon buñ moywul buñ moywul lañu wax nag dina dina fil bunt bi kat voilà doxi nekk ci yoonu boppam. Darwin Nunez mi ngi wéyale yoonam ndax ci liy soxal hymne à poire zone sud américaine pour qualifier mondial 2026 moom kat moo fa dàq dugal ginnaaw ba njegoon tey juróom-benn match am na 5 buts joxe 2 passes décisives lu beneen bi sax waxoon na ko mu ne nag Uruguay vraiment am nañ ay joueurs yu xarañ lool ak rawatina ki nga xam ne mooy Darwin Nunez. actuellement nag ñooy deuxième derrière Argentine bi nga xam ne am na 15 points ca classement bu Cristiano Ronaldo dañ ko fa tuumaloon wàllum viol benn mannequin buy uyoo ci Catherine Mayorga kon voilà ci procès boobee kat la kenn tibbul bala d'Or moom kat lañ mujj joxe moom lañ mujj jox dëgg ak geste bu noobu la def moom it mooy Erling Haaland na fay 15000 euros ci wàllum billet ci terrain nag 200 supporters yi nga xam ne mooy voilà le club de son enfance muy Brim FK. club boobee nag depuis 2006 voilà participer ci barrage pour intégrer li nga ne mooy première division norvégien bi kon voilà occasion la pour ñoom pour ñu mën a monter waat ci noonee kat yéen nga laag moo may supporter occasion boobu ñu dem indi jàppale ci club d'enfance am. Harry Maguire ci Harry pour moom nag jàpp na Harry moom mooy le meilleur attaquant ci terrain bi ñoom nag naam dinañ amaat jàmmarloo. mooy que luy soxal yéen mooy Ligue des champions ñoom ñoo leen daanoon à domicile waaye Old Trafford nag balaa leneen lañ fay fekk ndax ñoom kat dinañ taxawu dëggal seen bopp bu jëm ci am ndam. ci club boobee la ñuy desandi ndax liñ fësal ci xibaar mooy que kat ñoom dañoo bëgg beneen recruter beneen défenseur central ci li ngeen mooy mercato hiver bu ñu soxnikoo ci Mirror. Antoine Griezmann nag li ñu doon fës doon mu ngi ci yoonu télé fa fekkee Manchester United ci janvier bi waaye nag ki ngeen may Fabrizio Romano weddi na loolee ba mu set mu ne nag amul benn chance gis France bi kat ba quitté Atlético Madrid Antonio Martial bi nga xam ne voilà jàpp nañ ne kat mën nañ ko jaay bu baax ci mercato d'hiver bi bu fekkee nag am nañu offre bu mucc ayib ndax kat voilà bokkatu ci ay plan yi nga xam ne yéen dañ teen xar moom lay na Aston Villa ñoom nag bëgg nañu lool nag. transferu ghanéen bi mooy Iñaki Williams en janvier bu quitté Athletic Bilbao man kooku Cucurella mu ne nag kuy doxal foofa Chelsea chaque match da ngaa war a gagné ci semaine yëpp ndax noonee lañ bëgg di doxalee ndax club bu mag a mag la boo ñëwee ci club bu mag bi nga xam ne dañuy dund wàllu passion booy doxal ci club bi nga xam ne voilà club bu mag a mag la doolee c'est normal nag saay booy doxal ndam dongkat dañuy gis ci ñoom. Romelu Lukaku kon dina quitté définitivement Chelsea buñ soxnikoo ci Standard Sport mu ndara desani foofa ci AS Roma ek nag ndar nañ fay 42 de d'euros Liverpool ñoom ñooy favori pour mën a dalal portugais bi mooy Gonçalo Inácio les Red Devils ñoom pare nañ fay 52,5 millions d'euros pour recruter défenseur portugais bi ndax loolu dafay tollal clause libératoire Liverpool aussi am na plan mi ngi na si pexe xool ba xam kat kenn mooy Jurgen Klopp nan lay wéyale ak ñoom au delà de 2026 mooy que lu jéggi 2026 mu xaatimal contrat bu bees buñ soxnikoo ci football transfer. liñ fësal ci xibaar Tottenham de Pape Matar Sarr jàpp leen bu baax dañoo def ay njuñ njaaj ci atum 2008 nag la affaire yi dañuy remonté bañ jëndee kenn mooy Jermain Defoe mu bawoo foofee ca Portsmouth jàpp leen ka nga xam ne moo doon agent bu anglais boobee. Ampun, pour benn licence bu koy may kat mu mën exercer rôle bu mel Guzur boobee nak dañuy mujj nangu ñu fay 7,5 millions d'euros Portsmouth mën a bawoo foofee ek nag loolee tegoo ci charte yi nga xam ak ay règles yi nga voilà football la bu soxla ko ci time kon mën nañu tek ay dan. Tottenham ñoom nag pare nañ fay AS Roma ñu jaay italien bi Brian Cristante jàpp leen bu baax nag voilà pare nañ teg ci table 26 millions d'euros Philippe Mewen bi nga xam ne moo doon jàppante ki nga xam ne mooy Leroy Sané ginnaaw gi bala ba ñu ruusee almaa boobee mu ne nag Leroy Sané moom kat moo ko tooñ dëgg ndax moom moo ko buux mu wax kat voilà lan moo la dal ci noonee mu paniqué voilà mu tëgg ko mbéj ci noonee xaw na jàppante nag ñu ruus ki nga xam ne mooy le roi Sané waaye ginnaaw gi loolee nag ki nga xam ne mooy le roi Sané xamadi Sané sax la ñuy wax jàppaleen bu baax moom voilà jéggalu na kat ci ay coéquipier am ci adversaire yi ginnaaw gi lu jot am de même que ci kanamu ay supporter am. loolee encore une preuve que voilà Nacho bi tooñul kenn. li xewoon seen diggante voilà affaire yi mën naa ne féete na boo nakkat kat xamal yi dong de la wane ci jowante bi ek noonu la wane woon Sadio ba tax na Sadio Mané réagir nu mel comme mënti doon voilà bu defoon noonee kat voilà di nga ko tëgg lu mën ni xeme président Liga bi mooy Xavier Tebas moom kat voilà dafa tekki ay ndomba tànkam ci ligue espagnole la football bi nga xam ne moom moo koy jiite samay kër di nag la fësal xibaar booba ci Twitter. ndax mandaam dafa war a jeex sa 23 décembre pour rappel moom mi ngi dirigé seen instant depuis 2013 kon voilà l' espagnol de 61 ans jàpp leen bu baax nag dafa tekk ay ndooma tànk bu ko defee kat mu mën a brigué voilà beneen mandat bu bees et que boobee nag bu anto mooy quatrième consécutif et que nak amagul benn candidat bi nga xam ne voilà déclaré wu na moom de lañ fësal ci xibaar yi kon ñi ngi xaar ba xam kan mooy voilà oser défier Xavier Tebas et que pour rappeler initiative yi mu fi indi nag voilà moom nag moom dafay moom nag dafay opposé wu ci super league bi nga xam ne club yu bëri bëggoon nañ moo am foofu waaye voilà dafa dafa mujj taq suuf wàllum fair play financier aussi voilà indi na ci nag. benn benn benn xalaat bi nga xam ne mën naa ne UEFA sax mi ngi koy appliqué mooy que club bu nekk nag sa doole fu mu yem noonu nga mën a noonu nga mën a ci mercato bi képp ku ko jalgati nag yar dina dal sa ndodd et que loolu la ñu koy appliqué bu baax baax foofee ci Espagne. ñu desandi foofee ci Espagne kenn mooy Puyol ancien capitaine des Blaugrana moom nag mi ngi consi à ce que Gavi bu mu yàkkamtee benn yoon ci wàllum blessure am naam kat blessé lu metti la ndax moom dundal lu mais aset as kat da bëgg kat ñëwaat ci joonte yi ndax xam ngeen ne ki nga mooy Gavi ba mu blessé sax moom ca verset li mu doon wax mooy que lii kat mënul nekk waaye football ak blessure ñoo ànd ba tax nag mu ngi koy consi à ce mu def nànk-nànk boo ko defee kat mu ñëwaat ci niveau bu mucc ayib. et nag mi ngi encourage bu baax yéen mooy Xavi bi nga xam ne voilà presse bi aussi ñu ngi koy critiquer mu ne nag Xavi xam na bu baax kat équipe bi. kon moom am na confiance que vala dina ci génn bu baax ba ak résultat yu mucc ayib bu ma gëstu benn yoon kat di xool ñi nga xam dañ koy critiquer ndax loolee mën na la distraire ci li nga xam ne mooy say objectif fédération espagnole de football nag dina verse waa Barça 7,5 millions d'euros boo ko defee kat voilà ñu ndàmp leen ginnaaw gi kat blessure Gavi buñ soxandikoo ci as et nag xam ngeen ne moom dina toog ab diir laata mu ñëwaat ci jonte bi dinañ libéré benn masse salariale loolee lañ fësal nag buñ soxandikoo ci kayitu xibaari kat dinañ accéléré dossier budget bi mooy rokkee ci janvier bi lépp mën a antu mu utilisé le club catalan. dana doxal fa fekkati ko Madrid wala boog Barça Arda Turan la Turquie mu ne nag vraiment nag dafa ruiné. après li ngeen mooy carrière am kon moom li ñu fësal mooy que kat voilà dañ ko def ay njuñjaaj yi xam ne benn directeur bu banque kat moom moo ko ko moom moo ko ko teg ndax kat moo ko dugal ci guute yi kat dana ko kat boo investir kat di nga am koppar yu takku mu dugal treize millions d'euros ci ay koppar waaye gañewul dara effort bi nga xam ne nag def na ko ay at yi at kat loole dañ ko ko ba actuellement kat vraiment amatul dara il est ruiné. Moussa Konaté tàmbali na entraînement ak club bi mooy Bourse Foot 18 de Sadio Mané xaritu Sadio Mané ndax ñoom depuis olympique la mu nekk jafe-jafe mu recruté ko. kon loolee kat lu ñuy saluer la bu baax a baax le cas de Saliou Ciss dañ ci tegaat tànk balaa nag na ko indi ndëbal ndax Saliou Ciss kat voilà soxla na club bi nga xam ne dina ko may mu ñëwaat ci jogante pourquoi pas bu fee ci club bu Moussa Konaté bi. suñ génnee wane prestation mucc ayib sans le meilleur bi mooy Amara wala manque d'efficacité bi dong di la ñuy jooy ñoom waaye loolee nag bu antu woon waxatuñ ko waaye malheureusement dañuy ñàkk ci teg dóor yi li leen mën a waxal dong rek mu ñu leen ndax vraiment ilo mu yéela mayoon kookee di Serigne Saliou moo yëkkati kàddu yu mel ginnaaw gi jogante bi jàpp leen moom kontaan na ci ay ndawam nag ek jàpp leen bu baax nag voilà France bi nga xam ne moo ñu daan ñoom kat voilà mën nañu disqualifié loolee nag lañ fësal ci xibaar ginnaaw ba ñu utilisé benn zone bu US bu UE ci yenn si suufu biyam jot naa joon ak waa Niger voilà ñoom ñu convoqué ko kon buñ moyul lañ wax nag mën nañ leen te kay daan ñu génn leen ci compétition bi. est ce que buñ leen disqualifié Sénégal mën na ñëwaat waaye loolee seen affaire à suivre ndax kat lii nga xam ne moom mooy programme bu quart de finale fësal nañ ko nag Espagne Allemagne ñoo jàmmaarloo. sa 24 lay doon ci date boobe Brésil Argentine 25 France Ouzbékistan ak duel entre africain Mali contre les Marocains. kon ñoo ngi croisé suñu léew sooy bu baax a baax ak ñu ñaan leen ñu ñaanal leen ñu ñu am ay contrat professionnel Edouard Mendy Kalidou Koulibaly réagi na ginnaaw gi. ginnaaw gi bañu ba ñu amee 4 points ci li soxla qualification mondiale 2026 Edouard Mendy résultat bi nag balaa nag dinañu dimbali nag pour suñuy prochain joŋante rawatina lii nga xam ne mooy CAN Côte d'Ivoire 2024 Kalidou Koulibaly mu ne 4 points la ci ñaari match ñu dugal 4 bi encaissé ñu benn kon ñu ngi ci yoon bu baax bi pour voilà wéyale liggéey bi qualifié mondial Jules Riverengue ñu ngi fësal kii nga xam ne moom mooy Pape Demba Diop xam ngeen dafa amoon gaañu gaañ depuis mois de septembre. moom kat voilà jàll na li ngeen mooy opération avec succès kon dina toog ab diir mooy que mu amal rééducation laata mu ñëwaat ci ay jonte kon ñu souhaité que pronto rétablissement. buy soxnikoo ci sport pour li fësal mooy que Manchester City Manchester United Chelsea ñi ngi bàyyi xel bu baax a baax ki ngeen mooy Arnaud na Sangate kon av nag ñoom xam nañ bu baax kat intérêt bi nga xam ne. club ñu ngi koy bàyyi ñi ngi ñi ngi bàyyi xel et que kat voilà benn jour bi nga ne mën nañ ko jaay ci mois bu janvier fédération lan la ñuy xaar loolee mooy la grande question ndax équipe boo koy renforcer doo xaar jour bu amee talent car c'est moment nga convoqué ko bu ko defee nga verrouiller ko une bonne fois pour tous ndax xibaar yaa ngi biral ne kat xaar bi mi nga bëgg yàgg ek buñ moyul buñ moyul kat mën na otee ci yeneen pays voisins ci mën a Guinée Bissau wala bokk Mauritanie. gàcci ngaalama loolee la Habib Diarra voilà nak euh, def histoire ci Instagram am ndax dafay wat ginaaw ndax japp len France convoqué won ci équipe espoir bi ginaaw ñu zappé ko moom mi amna na possibilité jouer ndax do nañ biral ay xibaar nekkat voilà mën a def tànneefam pour les Lions de la Teranga waaye lu ci mënti am voilà il y a pas mal de cadres bi binationaux yi nga xam voilà ils ont joué avec les avec l'espoir bois France waaye ci mujjeel gi kat ils ont porté leur choix avec les Lions de la Teranga et que ils nous ont apporté de la satisfaction. bu fekkee benn joueur bi nga xam ne xarañ nañ mën nañ compter ci moom voilà pourquoi pas ñu may ko chance et que jàpp leen c'est à lui de prouver nag li tax ñuy woolu ko ndax vraiment nag vraiment am na concurrence ci équipe bi waaye li ñuy wax mooy avenir li nga koy waajal am nañ Mamadou Lamine Camara Dress Berkane Rasoul Ndiaye Pape Demba Diop ak yeneen ci ay joueurs yi am ñu ngi ci ginnaaw bu ko defee que ñu am ñu am benn avenir radieuse pour notre football waaye lu ci mënti am kat dafa mane dafa delluwaat ci ginnaawam ndax kan moom mi ngi indi jàppale di gàcci ngalaamaal suñ gaynde yi nga ne def nañ parcours bu mucc ayib vraiment ñu wane prestation lay wax sax mucc ayib contre les Bleus bu leen neexee ngeen bàyyi seen i commentaires est-ce que d'accord ngeen mu ñëw équipe nationale du Sénégal comme ni ma ko waxee moi c'est mon opinion personnelle S'il prouve et qu'il peut nous apporter quelque chose, pourquoi pas lui donner sa chance waaye ci ginnaawam il y a une concurrence rude kon gaañee ma lay foofee xibaar yi nag di leen ñaanal jàmm ba beneen yoon sur le de 221.